ah man de maître dama am problème. est-ce que yow am nga confiance ci waa loolu te am naa confiance bëgg na ma tamit. yow de yow banaa la yow li ma doon wax yëpp ndaxte dëgg la. moo tax la yaa bon. yow sa nga maa def nii yow. foogoon naa ne góor yu mel nii amuñu ci dëkk bi. salaamaaleykum sama mbokk yi sama xarit sama am du jaam man la seen xarit.

parce que damay bëggante ak benn xale bu ma bëgg ko lool mais sama parents yi accepté wuñu relation boobu waaw moo tax ma ne xaama ñu expliqué la ndax sacrifice bu may def ak moom ndax am na solo wala amul solo. est yow am nga ko bëggee waa ji ndax moom bëgg na la noonu. Ah, naa ko lool te am naa confiance bi bëgg na ma tamit bëgg na ma trop waaw xam nga rek nit ñi bu ñu nekkee sa noppi di wax doo mën a xam kan moo lay wax dëgg kan moo la dul wax dëgg moo tax da ngay xel ñaar. léegi suñ ko woowee pour ñu xool exactement fi nga toll ci moom ndax toll na ko ci yow léegi boobaa nooy def. ah man de xam naa ne moom vraiment du ma décevoir parce que moom xam naa ne man rek la bëgg. ah loolu wóor na. wóor na ma moom. Ah, waaw kon baax na léegi dañuy jël numéro ñu jéem ko pour xawal ba xam. waaw d'accord. léegi ñu jël numéro bi. defal ma fi numéro bi. Oke. Halo. allo allo Señ bi na def waaw maa ngi fi yaa ngi jam. ay sant bu baax alhamdulilah Wa man de dama fi amone ben cadeau bo xam pour yow la da nga amone cadeau pour man. waaw bu la wala livré. wa xalé bi nga gëna bëgg. ci sa aduna mo fi indi cadeau bu am solo pour ma indi loko légui léegi kon am na jigen jigen ñuy jox cadeau ay goor waaw waaw jigen yaang fi di defal di téral seeni copain yi bu baax sax. Ah, waaw waaw <laughs> légui nag dama bëggoon nga jox ma turu xalé bi. waaw waaw waaw turu xale bi iki lho. Fatu, Fatu, Fatu lah, Fatu gay. Hah? Fatu gay, du Fatu gay. Dede, du Fatu. Dede, dede, du Fatu, du Fatu. Fatu. Dede. Xol xol nga xadi xadi. Non non du xadi, du xadi, du xadi. Xadi, xadi tamit yónnee wu ma ko. Déedéet, du du xadi. Kon mu xool daa ni amoon naa fi keneen de xaram, xool Seynabou Seynabou la. Seynabou Seynabou. déedéet du Seynabou du Seynabou mais mën naa xam ndax euh, xam nga benn choisissant xale boo xam ne mi ngi tudd Ami. Ami. Hmm. Ami waaw daa mel ni amoon yow de yow banaa la yow li ñu ma doon wax yëpp ndaxte dëgg la moo tax la bon yow sañ nga def nii yow foogoon naa ne góor yi mel ni amuñu ci dëkk bi yow de yaa bon yow yow baaxuloo sama papa sama yaay yëpp lu ma doon wax kon dëgg la yow de yow dooy góor bu baax yow baaxuloo waxal maa lay dégg waxal. waaw waaw yow ma yow lu ñu fare yow lii nga may fay yow yow lii nga ma war a fay tay yow yow lii nga ma war a fay tey yow yow li ma la defar yëpp ci àdduna yow li ma la defar yëpp ci àdduna li nga may fay yow de banaa la yow banaa la àdduna àlaxira ay waay maître sama diggante ki ma gën a bëgg yàqu na lii fu ma mais attends mais yow yaa fi ñëw pour ñu dimbali la mais est-ce que xam xalaatoo woon ni fii boo fi ñëwee bu ñu la traité leen sa problème pour nga am ci ndam la mais dugg ci relation ba pare génnaat ci divorce yeeg n'importe quoi mais ni moo ko gën. ay waay ki ma bëgg waaye dem na. waa mbooloo mi dama leen di laaj lan moo ci seen xalaat ci lii ma bëgg it ngeen commentaire ci ngeen wax exactement xale bu jigéen bi ci lii mu nekk dëgg la. wala du dëgg nii la wala du nii. yéen góor ñi ma leen di ñaaxaat lu baree baree bari bàyyi leen di fowe ak xolu xale yu jigéen ñi ndax xamuñu dara ba tax ngeen di abusé wu di leen def n'importe quoi nga la yem leen ci kenn comme ni ma leen ko doon waxee bii passé ku nekk na nga fidèle ak sa partenaire bu ko defee ngeen mën a ànd ànd bu rafet ànd bu civilisé mais nii ngeen yàq xolu jigéen ñi ba tey ñu am métit di am ay n'importe quel feebar. ah yéen tamit yërmande comme ni ma ko waxee woon ci jigéen ñi tamit yërmande bàyyi leen mbaraan yéeg yooyu yem leen na ku ne yem ci sa moroom waa mbooloo mi maa ngi leen di ñaan ngeen aimer te partager ma bëgg tamit ngeen commentaire bu baax ñu xool kan moo am dëgg ci ñoon merci